Eh, loo loolu mu wax maanaam xëy na tawxiid la ba tey maanaam sëñ bi li ko boroomam jaral ba waxtu julli fekk ko foofu ak ci condition yi ak nam ko jullee loolu lay laaj mhm. waaw loolu moom moom moom tawxiid ju kawe kawe la mhm, mhm. mooy sëriñ bi ci boppam wax na ne daana net li wax ne ba muy sànni dara ba booba xaw ma dana labak du labak yooyu yëpp nekkul ci xelam moom gis na ne waxtu julli wi jot na te sunu boroom moo digle julli gi te nanguñ nangu luñ ko mu julli ci bato bi jéem naa julli ay yoon ñu géew ñu gàllankoor ko sëñ euh, Moodu Xari so mm-hmm. xam nga nettali na yoo xam ne wax ne sëñ bi coom moo ko nettali boobu mm-hmm. ne bind nañ ko sax am na kaset itam mu wax ne sëñ bee ko ko nettali wax ne moom foofe tam la masa nag sabab loo tam nee na nee na ci lépp ci biir géej gi day bàyyee boppam suñu borom lu mu jëflanteeg moom rek nga xam ne xar baax yi feeñaat yëpp it suñu borom a ko feeñaat rek ngir aar ko xam ne jaama ngi boo xam ni am na ñu ko bëgg néewal doole te moom jëmmam rek a tax muy jëw mu sàmm ko aar ko xalal ko baax xam nga yàlla dara dara yut ci moom géej gee ne la fa téye bato yee moo nu téye ci suuf si fii ne li ci biir xam nga <laughs> ah. moo tax bat mooy bato la leen téye ci kaw ndox ma bato du dara lu may ay ki pont <laughs> daati alwaaxin wa dusuur ni ko alxuraan waxee la ko téye ci kaw pont yi kaw kii ba nag moo moo moo mën na téye ku ne mooy jëmmi suñu borom rek mm-hmm. moo ko téye ba tax na suuf ak jéeri jéeri ji li teen dugg ci suuf maanaam moog moog ndox mi yam la fa téye maanaam la ca kaw géej ga mënu téye ci kaw suuf suñ suñ bi daa xamit ne jiiri jéeg ak ak ak ak géej gi ñoo bokk borom suñ kattan bari wunu ci kaw nii fii mm-hmm. kalab it fi ne du ceegee ne ay ñàkk pexe moo moo ko teelab mm-hmm. maanaam yàlla moo téye lépp dégg nga moo tax booba mu jël der ba sànni ko ci kaw géej ga yàlla defal ko xatul ko xar baax mu julli fa la mu fa war a julli ba àggal waxtu wa am na ñu ne tisbaar la ci wax ji gën a wér mel na ne am ñu wax takkusaan mm-hmm. waaye mu delluwaat ci bato bi wa fil yammi sallal asri yajri bi jildihi ma al fulki sëñ Mawlaay Buso noonu noonu la ko waxee mm-hmm. mu am nag loo xam ne sëñ Xaamidu junj na ko mu lu am solo mooy mm-hmm. daa bari ñoo xam dañuy tuumaal maanaam ne noonu dañuy bokkaale yàlla <laughs> te noonu nooy ñi gën a sori bokkaale yàlla xam nga ah. ndax dañuy wax ne dañuy ñaan sëñ bi day am murid yoo xam ne moom dañuy ñaan ci barkeb sëñ bi wala ñu ñaan si jëmmi sëñ bi ci waaw ah, loolu de léeg-léeg yàlla na la sëñ Touba may nangam nangam wala defal nangam loolu nag dara nekku ci ah. maanaam xëy na li gën sax mooy na nga ñaan yàlla ni ko sëñ ba daa defee ak mag ñu baax ñeg borom xom yi mm-hmm. waaye ci misaal boo boo duggee ci saxaaba ya ci moom nga xam ne ñoom la yonente bi yaroon am na ñoo xam ne yonente bi moo leen jàngal loo xam ne bu dee loolu bokkaale la lii it bokkaale la kon ah. <laughs> maanaam ci saxiixu muslim mm-hmm. dañuy fekk ku mel ne rabiatu bnu kaab al aslami nee na man dama daa fanaan ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko indil maanaam ndab li muy jàppoo moom laa ko daa lijjantil ba indil ko ko ak li mu war a lijjanti ko lépp ci ci ci bagage yooyu di ko bokk itam ci ñi ko daa euh, wattu njëlbeen gi ba suñ borom wàcce aaya ba wallahu yaasimuka min annaasi nga xam ne mu aajatul ku koy wattu ak ku koy ku koy garde nga xam ne yonente bi boobu ca lay wax ne man ngaa dem ba muy dem nag yonente bi daa wax euh, rabiatu bnu kaab al aslami ne ko mhm. sal nii sal nii la ko wax yow waaw sal nii mooy mooy ñaan ma mhm. mu ne ko asaluka murafaqataka fil jannati est-ce que loolu bu dee shirk la saxaaba boobu yonente bi la ñaan xam nga na ko yàlla lay ñaan mhm. yonente bi jubbanti wu ko de dana ko nag ainni ala dalika bi kathrati sujud Mm-hmm. maa nag ma ci dimbalee julli di naafila naafila gu bari mm-hmm. dana ko maa ngi lay ñaan ëllëg ma dëkk ak yow ci àjjana yonte bi ne kon loolu nag ma ci dimbalee xam nga asaluka mm-hmm. ak sal nii loolu loolu laa bëgg indi foofu maanaam loolu foofu lay dugg tekkiwul ne maanaam dañuy dañoo jàpp ne beneen yàlla am na xam na ne yàlla benn yàlla rek la sëñ bi it xam nañ ne jaamub yàlla beneen ko ba abdullahi la ñuy wax wax xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu amit xam ne ne yàllaa ko ko may loolu buñ ko xasee gëm nag maanaam sirku dootu yomb